mbokki internet yu ñuy dégg du ñuy safoo te di ñu teewlu di fi ci chaîne euh, YouTube SENactu TV di teewlu suñu ay vidéo ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajafal tey nag ñëwati nañ ak yéen indi leen information yi nga xam ne moom lañ leen a jot a taataanal ci bi lépp semaine ak yenn yi nga xam ne sax semaine bu ñu génn la tey nag dinañ leen dëgmal li fi jot a xew mbokki internet yi topp leen ñëw bu la ñu toppee rek dinañ leen dëgmal yi nga xam ne moo di lépp actualité yi nag Podor ak procès bi nga xam ne ni jotoon nañ koo amal foofee ci tribunal jëm ci diggante Farba ak ki nga xam ne moo di gardien wu Farba Ngom gannaaw nag niki avril bu ñu génn moom mais di gardien bu Farba Ngom dañ ko daal di giñoon ngir rek dafa daal di luubal ab xaalis bu tolloon ci huit cent millions juge bu da deuxième cabinet daal dina renvoyé di xamal rek ki nga xam ni moo ki xam ni moo di gardien wu Farba Ngom bi te rek nga xam ni moom mais ne dañ ko daal di giñ de ngir rek dafa jël ab sac bu defoon huit cent million euh, jotuñu ko indil ay preuve yu wane ne rek moom mais set na ci bi lépp ba tax na nag juge bu deuxième cabinet envoyé na renvoyé na li nga xam ni moo di bi lépp procès moom mais nag di gardien wu Farba Ngom ba tey nag mu ngi ci kaso yi fu mu tollu téeme nag nu muy mel fu muy mujjee kenn xamu ko ndaxte moom rekk ma nga ca loxol yoon avocat am nag mi ngi def kent lay kantanam ngir génne ko jugé bi la procès jàpp na ne rek moom mais di gardien te ñu ko daal di giñ bi lépp sàcc tegagu fi leen lu leer luy tax rek ñu bàyyi le procès ko ndaxte lu ci mën di am rek dinañ leen ko daal di taataanal fii si seen chaîne YouTube SENactu TV. mbirub sàcceeg njuuj njaaj nag yemul ci xaalis rek ndax entreprise bi di Eiffage li ni mel da koo daal di dal ndax moom ci lu tollook 120 litres de carburant rek lañ ko daal di sàccee foofee ca département bu Mbacké li ni mel nag tax na ba waa Eiffage jot nañ porter plainte foofee ca kaayal ngir rek euh, ñu daal di topp li mel ndaxte cent vingt litres carburant bu ñu sàcc euh, ëpp na te tamit jaarul yoon moo tax na gannaaw nag ba ñu soupçonné li ni mel ñoom yee rek di waa Eiffage jot nañoo porter plainte ba tax na enquêteurs yi wàcc nañ sur le terrain ba sax jot nañoo jàpp fukki nit ak ñaar yi nga xam ne doon liggéey foofee ci Eiffage fi mu toll tane nag bile enquête dafa nekk en cours loolu rek lañ ci jot a daal di taataan leneen rafetlu ci woot dinañ leen ko dëgmalal fi seen chaîne youtube seen acti tv bu ñuy jógee foofu dañuy daal dem foofee si lycée Ngoundiagne lycée Ngoundiagne nag fan yi nag mënuñu faa amal lenn li nga xam ne moo di ab jàng bu normal li ko waral nag ci lenn lu dul rek ñoom li olof di faral di wax naan jinne Maymuna di ab jinne boo xamante ne day daal di dugg élève bi bu leen duggee ñuy yuuxoo ko say ñenn ñi di daanu daal moo sonal bi lépp lycée Ngoundiagne ba tax na nag semaine bi ñu génn ak semaine bu ñu nekk rek mënuñu faa amal cours ba tax na nag cours yi dañ ko daal di suspendre ba semaine prochaine. waaye nag sàcc gi fan yi nag dafa daal di taqar naas yi sàcc nañ fii li nga xam ne moo di carburant sàcc nañ fi li nga xam ne moo di xaalis waaye nag bi lépp sàcc nag moom dafa dal di doy waar ndax ñoom daal ay xaru jàpp ay xaru jàmbu lañ daal di sàcc yàpp ko ci ab oto waaye nag li dal yi lépp sàcc reetaan lu na ndax ginnaaw bu oto bi départ rek ba agsi fi nga xam ni moo dal di wuur bi lépp oto dafa daal ñu sàccoon doon nañ leen den wër ak police mi ngi woon ci bi lépp naka noonu nag le police daal leen saisiré ba fu mu toll tamit yoon teg na leen loxo waaye nag ca wàllu mondial bi daal bëri na mondial bi daal bëri na loolu la nga xam ne rek ñu ngi ciy yekk yàbbe ba tax na sax waa al dañoo jot woote rek ngir rek ñu boycotté li nga xam ne moo di coupe di monde bi am foofee ca Qatar ngir rek campagne pour de grâce rek boo xamante ni fësal nañ ko ngir rek dañ ko war a amal li ma nag na waar ba tax na nag waa al ne ñi nga xam ne moo di waa Qatar nañu boycotté li nga xam ne moo di coupe du monde bu ñu dëgmal waaye nag li mel day mel ni amul ndax fan yi ñu nekk coupe du monde bi démarré na ba équipe yi sax yenn ci poule yi ngi daal di démarré seen première match yi ñu ngi de commencé seen match euh, ba tey dinañ ko boycotté duñ ko boycotté lu ci mënti am daal dinañ ko indi waaye nag fi mu toll tembe li ñuy xam rek mooy bi lépp coupe du monde mi ngi woy di dem bu ñu jógee foofu dañuy daal di ñëwaat Sénégal ndaxte gi nga xam ni ñu moo di ministre du tourisme moo di ministre du tourisme rek dafa daal di amal ab budget accord bi nga xam ne euh, ki nga xam ne moo di Akon amoon naka ak état dañ ko daal di romp li ni mel nag jotuñoo daal di fësal lekk lan moo nekk ci ginnaaw waaye nag bi lépp accord jot nañ ko dagg waaye nag li xew Pikine keddu ni doyul waar ndax sax dafa daal di jéggi dayoo ginnaaw nag ab xeex bu dox si ñi nga xam ne ñoo di ay homme de tenue ak ñenn ci ñi nga xam ne ñoo di jàppee ba ci biir dañoo ni rek ñi nga xam ne ñoo di ab policier benn ci ñoom dafa daal di jotee ak kenn koo xamante ni dafa am xaritu dealer naka noonu nag ñu jotee ñi nga xam ne ñoo di policier ak dealer yi daal di dugg ci biir xeex lu ni mel nag fii la xewee ci banlieue bu Ndakaaru rawatina nag foofee ci Pikine mbokki internetu SENactu TV li leen leen jot a taataanal ci fait divers jëmoon ci semaine bi ñu dugg ak semaine bu ñu génn waaye nag ndi daje ëllëg waaye laata loolu way leen di abonné te bu leen di fàtte ci bés ci cloche de notification pour di am suñu ay vidéo à la prochaine ci yeneen rubrique fii lay xewee seen chaîne YouTube SENactu TV la chaîne au cœur de l'information